wa rahmatullah taala wa barakaatuhu maa leen di nuyu ku ci nekk ci sa tur ak sa sant di la sargal di la jaajëfal ci ñëw bi di ko dooree ci soxna yi ak góor yi nekk ci presse ñëw taxaw pour déglu di nuyu tamit suñuy xarit suñuy am di jàmm militant et ma bëggoon nag ci élection présidentielle bu 2019 def benn déclaration déclaration bi lii sama base politique muy base u parti bi saytu nañu waxtaan nañu seet ci élection yi ñu jëm kan lañu ñu war àndal bi ñu waxtaanee dañu ne ñu ngi jàppale le candidat sa Seck nga xam ni mooy président wu coalition Idy 2019 li ñu tànn nag dañ ko saytu saytuwaat ko xalaat ko xalaataat ko bi ñu amee ay waxtaan yu bare ak candidat bi Idrissa Seck mu ñëw fii ñu waxtaan lu bare yoon donc tànn bii ñu tànn lu ñu xalaat la noonu la mënoon a demee ci intérêt Sénégal ndax Sénégal moo ñu ñor moo tax ñu jóg jàppale ànd ak askan wi liggéey Sénégal moo ñu tax a jóg ndax kat dañu ne dañu war a changer bu baax a baax mbir yi ma bëgg a wax nag ci aussi li tax ñu sawar ci jàppale candidat Idrissa Seck mooy solo gi mu wane ni jox na ko jigéen ci biir askan wi jigéen ci njariñam ci askan yi jigéen ci dugal loxoom ci askan wi ñu koy wax leadership féminin loo xam ni suñu xol sedd na ci lool ndax kat leadership féminin tey teg ko fa mu war a yegg ku ko fa ku ko def rek xam nga intere askan wi te dañuy sawar ci jàppale la kan nga ko yaakaar tey ci mbirum jigéen ñi ak fa ñu war a yegg dafa am lu nekk lu am solo surtout bi ñu xamee fi ñu jome jóge lan la dañu jóge ci mbirum parenage mu am ay jigéen yu déposé woon seeni candidature waaye bi liste bi génnee benn jigéen bokk ci kon bu ñu gisee ci candidat yi koo xam ne wane na ni leadership féminin am na solo ah day indi yaakaar ci ñun yaakaar nañu ni woote bi candidat Idrissa Seck woote dinañu gis njariñam te njariñ loolu ñu koy gis ca fa mu nar a teg nit ñi nga xam ni war nañoo mën a toog fii pour njëriñu askan wi li ma wax ci tubaab sax les personnes qu'il faut à la place qui sied yaakaar nañu ni côté boobu changement dina am leneen ay am tey dinañu teg ci place yi ña nga xam ne am nañu njariñ pour askan wi ndax loolu moo jik Sénégal dañu ne Sénégal de valeurs jikko yu baax loolu mooy tabax réew ak askan dañu ne Sénégal bu am koom-koom bu am mën-mën boo xam ne xale yi dootuñu sonn jigéen yi kenn dootuñu sonn Sénégal boo xam ni amul xaaj ak seen inclusif ñëpp ci biir ñëpp ñu teg leen fañ leen war a teg am considération te ñoom ku ci nekk dugal sa loxo ndax Sénégal jëm te kanam Sénégal nag bu am doole moom ci boppam ca biir waaye doole ci bitim réew ndax loolu tamit am na solo Sénégal ñu respecté ko loolu laa bëggoon a wax tey di leen jaajëfal wasalaam léegi nag lii dañ ko yeewoo tey lii ñu wax fii nee nañu dama dem Benno Bokk Yaakaar du lu am xaw ma nag fan la jóge information yi fuñ ko taataanee ba bind ko ci quotidien ba revue de presse yi di ko wax ba <laughs> ñëpp di ci waxtaan du lu am du lu am lii amul voilà merci beaucoup jërëjëf. voilà ça y est. jeex na. ah. une question. une question. bu mu bare parce que déclaration lay def.